alors euh, euh, ñu ngi ci euh, l'invité ak ci tey sunu gan di monsieur Bassirou Samb moom il est le huitième adjoint au maire de la ville de Dakar nekk également coordonnateur national de la jeunesse taxawu Sénégal moo nekk ganu Xoxaan donc ci l'invité ak ci Xoxaan kon ma bàyyi ko mu nuyoon teekat téléspectateurs yi monsieur Samb ñu ngi lay baax a baax. Aïcha maa ngi lay nuyu nuyu xoxaan ñu ma bokkal plateau bi mais di nuyu képp koo xam ne jamono ji yaa ngi bàyyi xel seen émission boo am solo bi nuyu askanu Sénégal mais particulièrement fa ma bàyyi ko di waa Grand Yoff jaajëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax alors xoxaan kon ma bàyyi la sa gan waaw euh, xanaa ñu nuyuwaat ko rek euh, dalal ko bu baax euh, moom Bassirou wax nga ko sànq mu ngi nekk huitième adjoint au maire de Dakar nekk itam ki nga xam ne mooy coordonnateur jeunesse taxawu Sénégal donc dañuy li nga xamante ni mooy euh, actualité euh, bi ñel assemblée nationale ndax gis nañu euh, samedi assemblée nationale amal nañ seen session ordinaire unique bu atum 2023 2024 ci loole nag ñu gis ne division am na ci député yi fare ci groupe parlementaire Yewwi Askan Wi donc ñi faree taxawu daal di génn li nga xamante ni moo di euh, groupe parlementaire bi euh, ba loolee am njeexintal ndax am na ay postes yoo xam ne ni euh, daal di nañ ko ñàkk alors Bassirou naka nga gisee situation gi ni mel. bon situation bi ñu mel je pense que ñun ñëpp ñoo ko dundandoo. Mm-hmm. may rappeler que te Yewwi Askan Wi dañu àndoon pour un objectif bien déterminé. Ah. mooy que dañuy dem ensemble au local dañuy dem ensemble au législatif à la présidentielle. nu ku waaye kenn ku ne yaa xam nooy toje sa bopp ji na maanaam chaque candidature peut s'organiser en fonction de ses affinités et je pense que au sein de la coalition Yewwi Askan Wi depuis le l'appel au dialogue du chef de l'État nous avons vu que am na benn divise malaise boo xam ne c'est un profond ci biir Yewwi Askan Wi maintenant bi ñu jógee ci législative yi Yewwi dafa am 53 députés ñu dem assemblée nationale waxtaan ñu ne ah ñun kat comme c'est une liste bu ñu demee woon élection législative il nous faut avoir un groupe parlementaire pour mener à continuer le combat parlementaire groupe boobu nekkoon 53 députés ñu amoon ci biir bureau de l'Assemblée nationale trois vice président yoo xam ni taxaw Sénégal moo yoroon benn Pastef pur am benn amoon deux secrétaires élus Pastef euh, taxaw Sénégal ak PUR amoon aussi vice-questeur bi nga xam ni moom la moom la Pastef yoroon donc ñu nekk di liggéey di ci waxtaan boobu ba tey mais bi ñu jubloo ci renouvellement li ñu gis depuis septembre monsieur Birame Souleye Diop bi nga xam ne mooy coordonner euh, le groupe parlementaire a refusé de convoquer et de parler systématiquement avec les députés de Taxawu et pourtant ce Birame Souleye a oublié que récemment bi mu fi commettre cette gaafam bi ba ñu yóbbu ko ci kaso bi ce sont les députés de Taxawu qui avaient porté son combat en l'occurrence wër Sénégal seeti tous les toutes les autorités bu ñu jàpp ne il devait intervenir parce que à l'époque ma ca kaso ba ñu jàpp ne amoon na ay njabootam bu feebar moom it mu boole ko ki jooy ñu ne war nañ ci mën a wax fexe ba mu génn ca kaso ba mu ne mais bu mu génnee li gis mooy biram dafa jël groupe parlementaire defe ni moomeelu Pastef alors que Pastef moomu ko <laughs> Pastef daf ci am ay député taxawu am ci ay député yeneen parti am ci ay député mais bu mais tu vas déposer une de 53 députés dont les 14 de taxaw en retirant poste yi taxaw yoroon jox ko Pastef bëgg ñëw ñu avale lool et ils ont voulu jouer à la ruse avec nous mm. en déposant directement le bureau ñu voté ko alors pour que taxaw bañ ci bokk xamul nag dëkk bi ko ëpp li mbokk mënoo ko jëw et comme il a refusé de parler avec nous comme ils ont voulu se réunir tout le temps waxtaan seen bi génn ñu ci mais on en a tiré les, la conséquence la conséquence immédiate c'était de se retirer du groupe parlementaire malgré nous et on a vu aujourd'hui peut-être ci biir débat yi dinañ ci ñëw conséquences yi nga xam ni moom laa bëggoon wax directement parce que finalement loo jàpp ne xëy na euh, njeexintal gi loolu lay doon ndax boo fekkente ne am na post yoo xam ne ni xëy na euh, waa groupe parlementaire Yewwi Askan Wi ñoom ñoo ko yoroon euh, mujj gi poste yi dañuy dem naturellement ci groupe parlementaire bu Benno Bokk Yaakaar est-ce que xalaatoo ne askan wi nga xamante ne moo porté woon le choix

mais déjà marqué d'une manque de culture extraordinaire ñu bañ wax ak ñun ànd nag neex na mais koo ba mu ànd ak mbaggam li ñu mënoon mooy kaay leen ñu waxtaan bañ nañ ko et maintenant dañu bëgg jaay fulla la mooy def seen bureau 53 euh, députés génne taxaw ba pare ñun ñu avalé ko fayda moom ñàkkuñu ko xaw ma lan lañ ñàkk ci politique waaye nag du fayda ce qu'on devait poser comme acte pour que le groupe ne soit pas disloqué pour que le groupe soit ensemble taxawu def na ko mais on a des gens qui ont fait dans de la dans la trahison parce que loolu rek laa ko mën a jàppee parce que su ma nee man yow du la boole ci li may def dama lay génn ci liste bi. Mhm. mais mënoo jël sama tur duggal ko ci liste 53 députés récupérer poste yooyu ba pare bëgg ma ko xañ te conséquence bi mu am mooy lan ba fay aujourd'hui wàññi influence bi taxaw bi bi yeewi amoon ci bureau bi. parce que yeewi aujourd'hui à la place de trois vice président on se retrouve avec deux. parce que on était quatre la bennoo amoon yeewi am trois wala am benn face à situation. Benno se retrouve avec cinq vice-présidents nga dem questure assemblée depuis toujours c'est la mouvance présidentielle mooy moom premier questeur mooy moom deuxième questeur mais manque de culture politique de ces gens de Pastef va faire de telle sorte que aujourd'hui Benno va récupérer l'ensemble de la question à l'Assemblée premier questeur deuxième questeur c'est-à-dire regard bi ñu doon am ci année bi sur le budget de l'Assemblée nationale parce que deux la ñu woon Benno Yewwi tey on perd ça au niveau de la question de l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce qu'il y a des conflits politiques. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas d'accord avec des gens. tey li ñuy reproché Macky Sall c'est ce que les gens de Benno sont entre de les gens de euh, de de parce que tey lan lañ doon reproché Macky Sall barki démb dañu ni Mimi def ni àndatul ak ñoom ñu koy daaxu ko tey taxawu Sénégal peut-être bokkatuñoo ak ñoom xalaat ñu impo bëgg ñu imposer mais li ñu bëgg xam rek mooy taxawu Sénégal comme l'avait dit Khalifa taxaw est né dans dans l'épreuve mais qui ce qu'on n'a pas pu accepter avec le parti socialiste ba ñu juddoo màgge fa mais du tey un parti qui est venu hier moom ñoo koy avalé loo euh, mu mel ni mbir yi ay ay ay fayantoo lay mujjee doon mm. ndax bu ma déggee biram Souleye bi muy wax euh, ci ay kàddoom wax na ba ne euh, bi ñu ñuy toroxal ville de Dakar pour dire que ne li nga xamante ni moom ngeen defoon keroog bi ñuy bi ñuy jëlee Abbas Fall ci ville de Dakar. Ah. xëy na loolu la ñu bëgg comme revanche à l' assemblée nationale noo gisee situation. d' abord moom mu baal ma ci may dëgg. et il est habitué à ça gis nga li ñu indi ci politique bi maanaam fen ak wax lu dul dëgg loolu la war a arrêté parce que quand Birame dit ça Birame oublie que dans le bureau municipal de la ville de Dakar il y a huit adjoints membres de Yewwi Askan Wi troisième adjointe au maire c'est la responsable des femmes de Pastef dans le département de Dakar Mami Aw Dieng deuxième adjoint au maire FSD/BJ Cheikh Bamba Dièye la bokk quatrième adjoint au maire PUR la bokk muy Daouda Gueye sixième adjoint au maire Parti la bokk neuvième adjoint au maire PEM la bokk bu Habib Sy sans oublier l'adjointe au Medina Aw bi nga xam ne mi ngi bokk ci parti Girassi sans oublier secrétaire élu Fatou Bintou Mbodj bi nga xam ne mi ngi bokk ci parti Déthié Fall donc comment on peut dire que Yewwi n'est pas dans ce bureau de la ville de Dakar Yewwi est dans le bureau municipal de la représenté par huit adjoints au maire occupe aujourd'hui des postes de présidence de commission à la ville de Dakar Yewwi est présent dans beaucoup de structures de la ville il faut ñuy wax dëgg parce que bëgg lu neex askan wi nag li ñu xamal léegi ci réew mi mooy politique boo xam doo wax dëgg ak manipulation donc loolu biram waxul dëgg foofu parce que je te donne des noms ak parti yi nga xam ne ñoom lañ bokk ñoom ñu ngi ci biir beneen bi mooy ce qui se passe à la ville de Dakar mais biram à nationale c' est le lieu de la législation fa la ñu voté c' qui a voté la parité et une décision aux HLM wax naa ko fii bi ma mujjee seen plateau mais c'est c'est une jonction entre Pastef et Benno pour récupérer des postes foofu de taxaw est-ce que dañ ci yuuxu mm-hmm. donc quand on parle aux il faut leur dire la vérité mais li ñu commencé xewal mooy fen wax lu dul dëgg ak manipulation il faut que ça cesse en tout cas nous avec Taxawu ça ne passera pas parce que on n'est pas des suiveurs on n'est pas des suivistes on n'est pas aussi né de la dernière pluie d'accord dëgg la dangeen ngeen bëggoon euh, jëmal li nga xamante ni moo di euh, décision boo xam ne xëy na euh, justice gàlloon na ko ci kaw li nga xam ne mooy ville de Dakar muy fexe ba respecter li nga xam ne mooy parité bi mooy li nga xamante ni c'est une coïncidence peut-être mais troublante mmh. mooy le fait que bi décision bi wàccee toog ngeen dur boo xam ne ni euh, ville de Dakar rétablirul loolu ñu dem nag ba diggante bi du demeetul noonu ñu gis ne organiser nañu mm. pour rétablir loolu ci kaw loolu aussi mm. euh, bi ah bon dison Abbas Fall moo nekkoon premier adjoint au maire non alors ñu gis ne jugee ci premier adjoint au maire ñu dindi ko donc jàpp nañ ñu bari ci askan wi boog jàpp nañ ne bu fekkonte ne ville de Dakar soucim c'était mu rétablir loolu euh, bu jëlee Abbas ci premier adjoint xëy na teg fa jigéen xëy na Abbas dina ñëw comme deuxième adjoint au maire loolu moo xaw a lëndëmal xelu nit ñi. waaw mais déet bu fekkee yow da nga benn poste yaa ko moom alors que poste ba muy existé nekk go ci politique da nga sa bopp mais pour il faudrait que ñu wax des faits. cette même appréciation xanaa il faut le faire dans toutes les communes du Sénégal. Mm. parce que c'est pendant la période que l'écrasante majorité des communes ont changé leur bureau aller à Fatick. c'est cette période que Birame Faye n'est plus adjoint au maire keneen jël ko HLM gii c'est cette période où il y une jonction entre Pastef et Benno pour faire perdre des postes à Taxawu Sénégal Dieuppeul Derklé du maire Cheikh Gueye le premier adjoint était Ibrahima Ndiaye de Taxawu Sénégal ki ko remplacé Pastef la bokk est-ce que Taxawu Sénégal dafa premier adjoint bi man maa foofu taxaw dafa bàyyi poste Pastef moo ko jël et à la ville de Dakar moi j'ai eu la chance de faire partie de ce processus depuis l'investiture jusqu'à la mise en place du bureau le poste de premier adjoint au maire tout comme deuxième adjoint au maire à l'époque bi ñuy def bureau bi monsieur le maire daf ni deux postes yi de su ngeen ma mayee sañ-sañ man ma tànn ñan laa fiy def ba mu bokk ci quota yi parce que yeneen postes yi ci des mën ngeen ko séddale parti bi am na ñaar parti bi am na à l'époque il a dit premier adjoint au maire bi de ki nekkoon sama directeur de campagne Abbas Fall moom laa koy proposé deuxième adjoint au maire bi madame le maire Ngone Mbeng vu son expérience bi newoon ci bureau municipal moom laa koy proposé waaw soo tànnee ñaar ñooñu tey nga dem ba changement am bu kenn ki posé logiquement deuxième bi dafa war a ñëw et c'est ce qui a été fait à la ville de Dakar et aucun élément de de Yewwi Askan n'a été éjecté de la ville de Dakar au contraire mais troisième adjointe maire bi elle est toujours de Pastef deuxième adjointe maire wax naa la ko léegi ñi ma la fi cité ñëpp seen ay parti ñi ngi ci biir biir ñi ngi ci biir yeewi askan wi donc logique par logique nous on a voulu respecter l'esprit de Yewwi par contre fële les gens ont voulu jouer la ruse oubliant que taxaw Sénégal c'est une grande formation politique d'accord mais euh, division bi ça commence à être euh, profonde disons mm -hmm. est-ce que mën nañu imaginer un jour euh, ñu retrouver waat ñi nga xamante ni ñoo formé woon coalition boobu disons euh, Taxawu bi nga xamante ni mm-hmm. mën naa ne beddi nañ ko wala boog ay seeni ay député démissionné nañu ci mm-hmm. groupe parlementaire bi est-ce que mën nañu imaginer ngeen waxtaanaat bu jubboowaat waaw man dama bokkul ci ñi nga xam ne ci politique dañuy gisaane lay xew suba man je préfère wax ci li nga xam ne moom mais li am solo man nga am analyse quand même non ah, man dafa am Sénégal nag léegi dañu am ay <laughs> gisaane kat ñoo xam ne dañuy xam sax lay xew suba balay jox résultat élection présidentielle man bokkuma ci ñooñu mais li ma jàpp rek mooy en tout cas ñun taxaw Sénégal nous voulons être cohérente et constante dans notre démarche cohérence mooy lan la ñu ànde woon lii moo taxoon ñu ànd hmm. ñu bu ñu tolloo fii kenn ku ci ne organise-toi pour être hmm. ci logique boobu la ñu nekk et dans nos différentes conseils municipaux les éléments de Yewwi ya fa amoon ay ay ay postes ba léegi ña fa parce que nous considérons que nous étions ensemble à l'Assemblée nationale ils ont voulu faire dans la trahison ils ont ils man dama considérer aussi irresponsabilité ak manque de culture politique kese la parce que xeex taxaw Sénégal manque de culture politique wala yéen politique bi da ngeen ko bëgg a jël def ko politique ub dil ba ba ku dilul rek wala respecté wul rek wala créé wul ruse rek ngeen ne yéen manque de culture politique la. mais xam nga la ruse c'est quoi. ma mhm. xëy na la retiré naa la ci say poste ba pare bëgg utiliser sa tour pour teg bureau. mais loolu mooy loolu mooy kii xam nga la mooy manque de. bul fàtte ne aussi Khalifa aussi. Hmm. Ousmane Sonko nawleem la te ñoom ñëpp ñëw tànkoon tëggu kàddu ne. Hmm. élection inclusive la ñu wax. Hmm. ñëpp dañuy bokk ci lañ def ba ñëpp yeewu rek ñi ci des rek ñoom ñëpp amuñu lenn loo xam ne def nañ ko pour wa wane seen détermination ba que ñëpp dañu war a bokk. Mm-hmm. comme ni ñu ko tënkee woon lu may ku ci ne di xaaj sa sa côté côté morom. Mm-hmm. benn instant aussi bu ñu leen traité de traître dañ leen di xaw a jox dëgg tuuti. waaw non xam nga ça je peux je je je m'excuse du terme je ah, aussi il faut que ça mais dama dama xam nga xam nga dans la coalition dans la coalition il n'y pas plus constante que taxaw Sénégal parce que bi ñu waree ànd di xeex xeex nañ bi ñu jàppee ni waxtaan jot na dañ am suñu courage en deux toog dans la coalition ni leen il faut aller répondre à ce dialogue au contraire xam nga ce ñan la ñu war a poser question. Mm. ñi taxawoon ni Ousmane Sonko bul bul bul bul dialoguer bul waxtaan xeexal rayanteel ba tey Ousmane Sonko nekk dans cette situation ñooñu la war a poser la question quest fait pour que Ousmane Sonko génn parce que ces gens de Yewwi qui

mën nañu régler ay question parce que Sénégal ba mu dee Sénégal ba tey question politique yi fi régler ëpp waxtaan moo ko nañ leen dem waxtaan mm. mais tout Yewwi s'est ligué autour de Sonko pour dire que bu leen dem waxtaani ñu jàppale ne xeex am na solo mais am na fooy toll li la waxtaan may jël ko ñun loolu la ñu wax mais waxtaan bi mayul rek pour que Khalifa nekk candidat coûte que waxtaan bi dafa maye pour que ñëpp bokk ci élection bi xam nga loolu dafa maye pour ñu libérer détenu politique yi attention revenons-en quels sont les points ah, la bi ñu demee ci dialogue cinq points yi la mu wax ñëpp dégg xam nit aussi Sénégal booy wax waxal la nit ki li mu wax ak li mu def xalifa dafa taxaw ci kanam ki saal au moment où ñenn ñi il préfère dem ci plateau télé yeeg rajo yi ni ko Macky ñi ñëwul de xañ na am na lu ñu d'accord ak yow ba ñu war a waxtaane la question de l'élection une élection présidentielle transparente et inclusive uh-huh. dañu war a waxtaane la question des détenus politiques la participation de tous la participation de tous à une élection Khalifa a été la première personne depuis 2019 à en parler uh-huh. même 2019 nous nous avions voulu être candidat on nous toutes les personnes yi nekkoon autour de taxaw Sénégal naan bu leen dem ba ñu éliminer dañoo dem defi seen campagne nag am na lu amoon en 2019 ba ñu xañoon ay candidats tey war nañu mën a jàng ci expérience waxtaan trouver solution nga yaakaar ni accords yi ñu amaku si néew si tout Yewwi était avec taxaw Sénégal ñu dem ci dialogue bi on n'aurait pu pas avoir plus d'accord que ça accords yi ñu am tey en termes de participation électeur élection en termes de parrainage tey bu imaginer tout Yewwi été sur la table des négociation dañu ko doon am mais à l'époque dafa am ñu ni bu ñu waxtaan nañu xeex ña doon jiiñ taxaw Sénégal naan ko yéen a dem ci dialogue bi parce que dañu jàpp waa Sonko mais boobu taxawu Sénégal ñoom ñëpp ñi ngi def tournée actuellement parrainage ñoom ñëpp ñi ngi def tournée di paillage seen candidat quel acte ces gens qui sont restés de Yewwi ont pour la libération de Sonko à part des communiqués oh. xam ngeen ni kaa taxaw était à l'intérieur combat ya doon am ña ko doon porté principalement kenn daanu ci jiitu taxaw Sénégal. Mhm. kenn daanu ci ji Barthélemy kenn daanu ci ji Khalifa Sall léegi évaluer depuis que qu'il y a cette séparation taxaw pousse ne Yewwi dem ne quels sont les actes que ces leaders de Yewwi ont posé pour libérer Ousmane Sonko xanaa génn rek ci rajo ak télé def ay déclaration yem ci. Mhm. donc aujourd'hui Sonko et ses gens devraient réfléchir sur ce qui reste de Yewwi quest lan la ñu posé comme acte. deuxièmement amul ñoom taxawuñu fii ñenn ci ñoom. li mhm. du ñu nekk candidat parce que Sonko nekk ko. demuñu ñoom ñëpp jëli seen ay fiches di parrainer. Oh, aujourd'hui quand a éliminé refusé à Sonko des des des fiches. pour être logique avec le pour être logique avec eux-mêmes ils pas aller refuser waruñu woon a jëli ay fiches. la. parce que tànk tànk tànk dafay tàlli mbaamu banque ñun nag dañ ko tàllal ba ñëpp xam ne tàll ne néew ñu di tàllal guddi banque ko bëccëg mm. d'accord xanaa wax rek ci ah, pardon man euh, par rapport à ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale le monsieur mu ngi wax ni kii wax na ba wax fi trahison daal d'une part dégg nañ ko ci mais tamit euh, comme charte yi sànq Seydina ci ay kàddoom waxoon na ko ci seen ay charte maanaam am na waxtaan ngeen ba ne lépp tout sauf Macky Sall maanaam tout sauf toog waxtaan ak Macky leader bi nga xam mooy Khalifa Sall dem na tey euh, waxtaani ji nee nañ la ak dafa am li ko fa tax a jóg mais est que tamit duñu wax ni ki c'est pour ses propres intérêts maanaam moom dafa xool yoonam xool ni lii mooy mën a tax moom ci candidature am wala mu mën a nekk lii lii mooy euh, il fallait mu dem defi waxtaan gi loolu mooy tax mu mën a am tey ji benn liberté wala mu mën a euh, am benn bokk ci élection yi moo tax mu dem mais pas question de dafa topp parce que dañoo dem pour waxtaanee lii ak lii ak lii mën nañ wax ni ki nit ki mën nga wax ni lii moo la fa yóbbu waaye les vraies raisons c'était pas ça maanaam c'était pour ses propres waaw xam nga bu dee yow da ngay xam li nekk ci sunu ginnaaw xel loolu moom génne nga dama la koy bàyyi mais ma wax la ñaar benn yoon amul benn charte bu interdit la participation je défie tous les leaders de Yewwi Askan Wi comme sort benn paragraphe benn expression benn mot bu wax loolu amul deuxièmement xam nga Yewwi Askan Wi tant que Khalifa Sall était calme yu waxul affirmé wul candidatum le plus beau c' était le plus joli c' le plus sage waaw mais ñun dañu ànd ci yeewu askan wi ñu yi dañuy dem élection législative su ñu amee la majorité on dépose des projet de loi pour la participation de tous aux élections ñu ñu dem ci élection yàlla joxul yeewi askan wi majorité boobu la question que je me pose quel est l'acte qui par yeewi depuis sa création pour que xalifa Sall bokk ci élection yi waaye léegi daal mën nañu ak way ay partisans trouver les voies et moyens politiques de participer à une élection présidentielle. venez de le dire ma rek. loolu léegi yéen tey nee ngeen wéy ñun waruñu dañoo war a xeex pour que Ousmane Sonko bokk waaye ñun waruñu xeex pour ñun ñu bokk. quand on quitté le parti socialiste xam nga lan la woon. Mhm. parce que parti socialiste dafa demoon seey ci ginnaaw Macky ñu ni ko ñun le parti socialiste vu son histoire trajectoire am c'est un parti laawu ñu mel ni man juddu fekk suñu waajur di fa xeex nekk xale ba am responsable Khalifa Sall depuis 11 ans suñu mënee séparé ak parti socialiste sur des principes ce n'est pas une coalition qui est née hier foofu la ñuy toog bàyyi ba la ñu la ñu la ñu xeexoon dem. aujourd'hui la question qu'il faut poser à ces leaders de Yewwi depuis sa création. Ah ah. vous autres journalistes. quel acte Yewwi Askan Wi a posé pour que Khalifa Sall soit candidat ba bi ñuy dem ci dialogue tous les leaders qui ñu doon toog sur la table de Yewwi yaa que Khalifa Sall bu élection amoon moo mënu woon a bokk. aujourd'hui il y a un dialogue politique et Sénégal de de 1960 jusqu'à maintenant toutes les questions qui se sont réglées c'est autour d'une table parce que ñaar moo am mhm. ñu toog ci table waxtaan mhm. wala ñu bàyyi après la guerre ñu waxtaan ñun nag on voulait être 15 ans bi ñu nekkee ci kaso bi dañoo dem dialogue tey jii ñu amaat del suba bu dialogue demoon dañ ciy demaat mhm. bokkuñu ci ñi nga xam dañoo toog fii Sénégal ni kenn du dem dialogue mais de ñi waxoon taxaw bu dem ñoo wax ni Macky na waxtaan ak Ousmane Sonko waaye dialogue démb ba ak bi ñuy woote tey lu leen wutale. waaw mais tey euh, Bassirou compte tenu de tout ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale samedi est-ce que tey ñoom Pape Djibril Fall ak ñoom euh, Thierno Alassane Sall ak ñoom ñi nga xam ne waxoon nañu ñoom peut-être c'est des opposants à. Euh, maanaam de de part de particulièrement à part quoi comme ni ñu koy waxee ñooñu est-ce que tey jii euh, yeyu ñu leen un peu du du duñu duñu reetaan duñu reetaan coalition euh, Yewwi Askan Wi non c'est dommage histoire jox na leen raison quand même non que dommage d'en arriver là mm. parce que xam nga euh, am na lu nit ñi fàtte wàllu dafa ñu jox une leçon politique extraordinaire ci renouvellement bi parce que au sein de Wallu. Oh. Mamadou Lamine Diallo. qui est vice-président et candidat à l'élection présidentielle. Bara Dolly Wallu daf ko maintenir dans son poste de vice-président. Mhm. Bara Dolly tout le monde sait ses positions ne sont pas toujours en phase avec PDS. mais PDS daf ko maintenir comme vice-président du groupe c'est ça l'élégance politique. c'est-à-dire peut avoir des divergences mais il y a des lieux où la politique waru fa dugg c'est ça que la leçon après ce, ces combats que nous avons menés ensemble au sein de l'Assemblée nationale d'en arriver là parce que oui quelqu'un te dit que oui la xewoon ville de Dakar ñun dañuy fayantoo donc ñooñu wan nañ Sénégalais tout de suite leur vraie nature euh, leur vraie nature que demain bu ñu faloo. ils mhm. seront pire pire que Macky bu baax a baax. waaw euh, Samb ñuy fàttali rek moom mooy huitième adjoint au maire bu ville de Dakar nekk également coordinateur euh, national de la jeunesse taxawu Sénégal c'était un plaisir vraiment de vous recevoir Bassirou merci jërëjëf. merci Aïcha merci Xoxaan ak suma jigéen maa ngi rafet bu baax a baax. waxtaan bi mhm. mais di jéegu lépp lu ñu fi wax lu dëng rek ñu xam ni ndaw lu matul la lu baax. suñu borom mais di wax daal Sénégal. benn bopp la kenn waru ko xar ñaar. Mm. nañuy sóoraale loolu ci acte bu ñuy posé. xam ne suba euh, dañ ko war di fàttaliku lu mat a sóor la. mu ngoog jaajëfal bu bu baax a baax et félicitations pour le bébé. merci <laughs> merci merci Aïssa euh, man à personnel également.